bu leen fàtte abonné ci seen seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. waa dëgg la. est yu am visa en cours. ñu woo mm-hmm. noonu la ñu woowee Ndiolé mu ne day ñëw. Mm-hmm. woo Salam Diallo mu ne day ñëw. Mm-hmm. woo Aïda Samba déggoog moom ci cachet billet d'avion ak ñëw mu war a ñëw. Ah. noonu la woowee Viviane téléphone. wax ko ko. mu jox ñu beneen numéro nee nañu woo kooku muy Mama Tene nekk Prince Art. waaw ba ñu woowee Mama Tene Mama Tene ñu waxtaan ak ñun ci cachet tout cela mu am nu mu waxee. Mm-hmm. moo génn ne ma ah comme loolu la nañ ko bàyyi. Mm-hmm. parce que lii du soirée du concert te gratuite la. waaw gratuite la. Mm-hmm. fekk avant loolu sax Amina Poté ci boppam. waaw dañ ko ci boole woon ko mu ñëw présenté ni bi Gueye ak Aba. Mm. Aba dernière minute Pape Cheikh ñëwu fa te moom moo nekk TFM programme bi bare moo tax ñëw. Mm-hmm. Gueye ñëw. Amina Poté bu ñu déggee loolu dégg wax nañu Viviane xaritu Viviane la mu dem toog kër Viviane wax ak Viviane. Mm-hmm. léegi ci la Viviane wax léegi dañ ko fay temps bu mu wax cachet bi. Mm-hmm. waaw jëndal ko billet d' avion mu ñëw comme invité. waaw. ñu delluwaat dem ci Ibou Ndour ñu ne ko Viviane d'accord na lii fekk Ibou sax beneen prix la waxoon. Mm-hmm. moo génn na su doon loolu la nañ ko bàyyi Viviane jaru ko bu ñu ñëw. Mm-hmm. ba dernière minute Viviane moo ñëwaat ci ñun. mais d'accord na ñu jëndee ko billet première classe hôtel bu mu dëkk. Mm-hmm. ak ñu fay ko cachet temps. bu mu waxee loolu ñu yónnee ko avance am. yaa ngi may dégg baax. yow rek laay déglu. am nga contrat amul amul dara lu ñu bind ci kayit. foofu laa doon buggee hmm? posé question. amul dara amul ñu bind ci kayit lépp ci téléphone la nopp ak téléphone. nopp ak téléphone. Mhm. ñu yëkkati avance yónnee ko. Mhm. Viviane su ko neexoon suba sax du ñëw. waaw. su neexoon suba du ñëw xam ndax du hmm? suñ ko nee jox nañ la avance amuñu benn kayit. waaw. yaa ngi dégg mais lépp dama jàpp ni contrat moral contrat la parce que nit ku nekk sa kàddu nga am. Mhm. allo voilà léegi bu loolu amee ba mu jëlee avance dem ba ci biir ba xam ne commencé nañu publicité nee nañu Viviane day ñëw waaw mu woote waat moo géet ne ko soo jëndalul naa bi dafa war a jàngi si kon du ma ñëw Viviane a wax loolu Viviane Dakar xam mhm. nga chantage commencé na ñëw Viviane moo wax loolu voilà mhm. léegi ne kon du ma ñëw te su boobaa yéen a yàqule parce que annoncé ma pare te américains duñ ma gis te dootuñu leen gëm gars yi yaa ngi déglu Viviane moo wax loolu. yéen ñu bu baax. ñu ne la garaawul na garaawul nañu bàyyi noonu. Mm-hmm. xaalis du dara billet d' avion comme ñi ngi jëndal leneen nañ ko jëndal. Mm-hmm. ñu yónnee doomam Zeyna billet première classe Zeyna liggéeyul ak Viviane du manager am du dara. non non du staff su waree dem jàng su jàngi na ko yaayam jëndal billet wala papam wala keneen jëndal ko billet. Mm-hmm. moo géej moo jënd billet pour mu jàngi. voyage nag sooy voyager avion bi du avion du jet privé nag da koy bokk ak nit ba ñu ñëwee ba aéroport Ndakaaru ñaaxal loolu ñu ngi koy snap di ko naan sa boolu tegle yi mu daw leen taxawee ne le. Mm-hmm. bi ñu wàccee New York ñuy jël seen bagage mu taxawee ne le ñu la jëlaat vol pour Las Vegas moom mu dem fanaani kër Moussa Versailles. parce que du bokk ak ñoom boobu. problème bi problème bi foofu la commencé mais loolu yëpp ñu ngi maîtriser. ok. ba ñu xëyee Viviane ex Las Vegas. man fi ma nekk fi ma logé ak aéroport dix minutes la. ñoom moom fi ñu nekk ak ñoom Babacar quarante cinq minutes la ak aéroport. comme vol bi egsi na Babacar diaspora woo ma ne ma Viviane egsi na comme man yaa ngal oto du ngeen taal seen oto ngeen def GPS ngeen dem jëli Viviane. man ak Gomis ñoo ñëw aéroport jëm si Viviane keneen am ci. gis naa leen. keneen àndu ci. gis naa xalaat bi ba ñu egg see gomis jël photo di leen photo comme arrivé la événement la foog ñu photo ñëpp seen arrivé. Mhm. ñu ko defee ñoom groupe ñoom saa neex. bien sûr. Zeyna mu ne ko bul ma photo. Zeyna wax loolu. gomis wàccee appareil am fekk man commencé woon naa def benn YouTube live soo xoolee une minute cinquante deux la. Mhm. bi ma déggee loolu ma arrêté sama live arrêté parce que nee na bul ma photo man ku force du ma la photo. si si. ma jël chariot bi Viviane. ak ay bagages am puus ko jël ascenseur bi yéegee ko fi ñu paak ci parking bi moo ubbi oto bi dugal ay valises am dugal ko ci biir oto bi. Mhm. bi ma ko dugalee ci biir oto bi Viviane moom du xaar parce que di joxul la na mi ngi aéroport. Bitrus Couture ñëw na mi ngi aéroport. Euh, Bamba partenaire Couture ñëw na ñu ngi aéroport ñoom ñëpp la ñu a jëlaale pour yóbbu leen. Mhm. léegi Viviane bi kaas ne moom day dem du xaar kenn. ma mm-hmm. woo Xaadim ak Babacar diaspora ñu wàccee valise yi ñoom ñu jël benn oto ñu yóbbu Viviane hôtel Paris hôtel mm-hmm. man ma dem jëli Bamba partenaire di jeexule ak ñoom maîtrise ak mm-hmm. Sankara Mbay waaw bi ñu ñëwee ba ci buntu hôtel bi Xaadim ñëw ci ñun ne la am problème ne ko lan mooy problème bi nee na Viviane Xaadim voilà ma Viviane nee du dëkk fii ma lu tax mu ne parce que dafa bëri nit ay ñoom ñaa xarañ loo ñoom salaam ñoom dëkk fi ñu dëkk ah, mu ne ma wax naa ko moo nag moo mi ngi ñëw mais moo mer na nee na kenn du ko imposé cinq étoiles la wax yóbbu nañu ko hôtel cinq étoiles man Tange Tandian man maay wax de sama aqulaay taala su dee li ma wax du dëgg yàlla na du ma gis samay njëriñu doom mm-hmm. yàlla naa la mm-hmm. mu ko xaali mu ne ma naa mu ne ko moo su bu mu defalee noonu Viviane suñu jigéen la mm-hmm. na calme xam naa dafa sonn ci voyage bi na xool li mu bëgg mu defal ko ma woo xaw Dioum depuis Sénégal ma ne ko Baxaw Viviane de mi ngi commencé déconné comme yow maîtriser nga ko doo woo waxtaan ak moom mu calme man maa ko woo Baxaw mi may dégg. ma ñëw ci hôtel bi moo ñëw ñëpp dar ko ma woo mu ci pat ma ne ko moo kaay mu ne ma ma ne ko wàccal calme Viviane suñu sœur la nañ ko gérer. Boubs ma dajeeg foofu ba ne ko voilà Boubs ma ko yow diplomate nga mën nga arrangé àndal ak moo ngeen toog ngeen waxtaan ak Viviane. ñu dem mu ak Boubs ànd ñu toog ñu waxtaan ba pare Viviane ne ko waa d'accord moom du dëkk fii moo ne ko garaawul fan nga bëgg mu ne ko Bellagio hôtel moo ne ko waa dinaa dem jëlal la suite foofu Zeyna si la taxaw doomu Viviane Zeyna taxaw di saaganteeg ñoom di naan xanaa xamu leen sama yaay sama yaay star la sama yaay bi ñëw ngeen koy bokkaloo hôtel ak ay ñoom ñaa xarañ loo ñu ne ko xanaa yaay manager Viviane mu ne ko waaw. ah bon. gaa yi Viviane. moo indi coow lii boobu yëpp Viviane waxut. man yaa ngi dégg. boobu moo géej génn na dem Bellagio hôtel jëlal Viviane suite. dañ hmm. ko jëlee ba pare mu woote téléphone ne léegi Viviane na jéggi xam nga Bellagio ak Paris benn da ngay jéggi tali. Hmm. na jéggi pour mu ñëw bagage am ñëw loolu. ne yaayam du dox. i Zeyna Ndour ne yaayam du dox di jéggi tali. <laughs> yaa may dégg bàcc gumba la xaritu Zeyna Ndour la xamante nañu bu baax Amérique ñu xamante bàcc nee na gannaaw ñu ko jëlee oto bi tourné jël ko bàcc bu mu jëlee oto bi dem di jëli Viviane. yaa ngi may dégg. may dégg bàcc ci biir oto bi xaadim ñu ci biir Viviane ñu toog waxul dara. Zeyna commencé di saaga xaadim. boobu bàcc mi ngi wax ak moo mi ngi wax ak moo géej téléphone. xaadi mun na ko jur de. parce que xamante nañu ñoom ñoo xam seen Amérique muy saaga ay ndey sama yaay nii sama yaay star sama yaay du dox sama yaay muy saaga ndey. moo géej dégg loolu. Hmm? ne man ak xaadim bu dara dul dara la boobu yoruma ñaar dërëm ñaaruma ñaar fukk. du ma def événement bu fii di ko indi xale bu ndaw di ko manqué respect. Hmm. boobu la Viviane ñëw ñu dem ci biir suite bi. moo compté xaalis bi ne ko Sankara Mbaye hmm? filmel ci Las Vegas la am nga droit filmer ci biir hôtel am nga droit wax ñu téléphone enregistré ko amoo droit def ko Californie état bu ak sa droit ne ko maa ko fi indi pour show bi mais show bi dañ ko focus ci designer yi hmm. comme coow am na bàyyil ma jox ko deux millions cinq cent yi ñu waxaale woon Viviane ne du deux million cinq cent trois millions la yaa ngi dégg wax ji moo géet jël téléphone am woo Ibou Ndour Dakar Pressard mu ne ko ñaata la ñu waxaale mu ne ko deux millions cinq cent mu ne ko d'accord si kanam ñëpp mu ne ko garaawul ne ko Viviane du trois millions nga wax mu compter ko trois million jox ko ko ne ko lii lañ la waroon mu jël billet première classe Las Vegas New York jël billet première classe New York Dakar pour Vivian ak Zeyna. mu jox ko ne ko mënatuñu liggéey ak yow. mu ah. tax mu def loolu. mu ne Sankara Mbaye moo géej daf ko indi pour mu koy esnabal pour li muy def mu siiw. Hmm. ñaa xalañ loolu dañ ko jëndal biir première classe di ko fay ay millions pour muy def loolu mooy seen liggéey dañ koy def. bien sûr. bi Sankara di filmer yéen a ngi dégg bi yàlla ko loolu mooy filmer. Hmm. loolu ñëpp gis nañ ne ko dañ ma fi indi pour ma filmer. mu tourné mu ne ko comme ki ma fi indi mi ngi wax mu tourné caméra am ci moo géet di ko filmer hmm. bu mu filmer moo géet ba pare moo géet jël xaalis bi ak billet d'avion bi joxe ko. bu leen fàtte abonné ci seen seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran.